mu nekk am xabaar bu tiis bu dal ci kaw taskatu xabaar yi gannaaw ba nga xamante ne rek moom mi la nekk directeur de publication bu ëttu yëglekaay bi lee di la tribune di wuyoo ci turu Pa tara ware moom na gannaaw bañ ko convoqué euh, tey jilee foofee ca euh, division des investigations criminelles jamono ji may wax ak yéen daal nañ koy placé ci garde à gannaaw ba ñu ko auditionné daal di koy euh, ci diggante tontoog laaj ci moom mi lay di wuyo ci turu Pa Moussa wala nekk directeur de publication bu journal La Tribune bokk ci li nga xam ne moom mooy maison de communication bu D-Média bu Bougane Gueye Dany mu nekk ab nouvelle boo xamante ne rek dal na ci kaw ñi leen ngi waa D-Média ci képp koo xamante ne da nga nekk fii ci diwaanu Sénégal di yëngu ci wàccu ci wàllu métier taskatu xabaar moom bi la nga xamante ne nag daal nañ koy teg garde à vue mu nekk nag la nga xamante ne rek jamono jile daal nañ koy nemmeeku ci nguuru jomaay gi nga xamante ne defaguñ fi sax lu mat ñaari weer waaye nag gis nañ ña ngay jàpp li nga xamante ne rek moom mooy taskatu xabaar yi gannaaw ba nga xamante ne sax directeur de publication bu Soleil moom it suba jox nañ ko ab convocation ab mbir bu doy waar boo xamante ne rek Ah, ci coowal li nga xamante ne rek moom mooy général ah, Souleymane Kandé ci ab affectation fële ca New Delhi ba nekk ci diwaanu Inde gannaaw ci ay ah, mission force spéciale ñii la nag dañoo wax ne Ousmane Sonko moo joxe bi lay directive ñii la nag daal di ne ñoom dañoo reprendre article bi nga xamante ne rek ab site d'information ba nekk ci diwaanu États-Unis moo ko daal di publier ñoom ñu republier ko waate mbir ma nag moo jur ay jafe-jafe waaye tamit ci li nga xamante ne rek moom mooy ëttu yëglekaay bi di la turbine le quotidien ak euh, di durpib bi nga xamante ne ma jambal jaaj moo ko daal di moom tax nag jamono ji la rek ñi leen di taskatu xabaar yi nag ñoom ña ngay euh, jël seenu doole ak xel yëpp daal di jàppale seen i ay confrères ak consoeurs yi nga xamante ne rek nee nañ duñu nangu benn acharnement wala nag lépp loo xamante ne rek nguuru Macky Sall journaliste